oto dañuy daal yu bëri dootuñu fonctionner ti ah, pourquoi parce que taw bi ah, pourquoi parce que rek tali bi ni muy daal di naqaree ah, ba tax na tey dañu daal di ñëwaat seet rek li nga xam ne mooy benn monsieur bi nga xam ne moom spécialement clim lay daal di defar kilimu oto donc kilimu oto nag ñi bëri xamuñu fan lay nekk ñu bari xamuñu naka lay daal di demee ñun suñu waxtaan dina yaatu lool ci moom ba tax na dañu daal di ànd complicité euh, Cheikh mu daal di ma accompagner si biir ñu daal di xool fu mu toogee ñu nuyu ko daal di yaatal rek li nga xam ne mooy waxtaan bi booy xool de manière historique à la base option la ci oto parce que bi première automobile yi tubaab defar climatisation bokk ci woon bi ñu ko ciy ajouté option la ko ci ajouté par la suite ñu dem ba clim nekk loo xam ne dafa indispensable ci automobile bokk ci nekk un travail à part entière déjà euh, man bi may bi may bi may bi may bi may bi may bi may euh, jël métier climatisation di ko jàng sax j'étais quand même surpris que ni c'était un métier à part entière dama foogoon balaa ma cee dugg dama foogoon ne électricien yi ñooy def climatisation par la suite laa comprendre ne c'est un métier à part entière boo demee ba foncé ci biir da ngay xam ne aussi tamit vraiment liggéey la à part quoi bu mu boo mënta boole ak leneen. parce que man it en tant que euh, une personne simple bi nga xam ne li ma maîtriser ci oto bariwul lu dul dawal rek laa ci xam xaw ma woon ne sax ne euh, kiy defar électricité oto mënut a defar climatisation parce que pour man kiy defar clim. oto euh, kii defar euh, électricité bi mun na defar clim donc lan mooy seen différence entre yéen ñi nga xam ne électricité ngeen defar ak yow. ba la différence elle est elle est elle dara électricien ak kiy def euh, climatisation jotewuñu dara tey kiy def clim moom frigoriste la électricien électricien la mécanicien mécanicien la mais kii def clim kooku frigoriste la joobam c'est un c'est un travail à part. bu jotewul dara ak électricien clim da nga koy jàng comme ni ngay kee di jàngee électricité ni kee di jàngee mécanique noonu la ñuy jàngee climatisation waaw noonu la demee waaw. alors léegi euh, yow da nga ko jàng fan nga ko jàngee at jàng bi ñaata temps la la ju bon maa ngi ko jàngee Médina d'abord mais ci benn nit quand même euh, mu ngi tudd Abdoul Aziz Dieng. Abdou Aziz dien gars yi xam nañ ko bu baax fii Sénégal am na benn notoriété ci secteur climatisation d'ailleurs il fait partie des pionniers ah ñi fi njëkk samp atelier boo xam ne clim exclusivement lay def parce que ñi fi daan def clim auparavant dañ daan nekk souvent ay électriciens yoo xam ne dañuy taqale liggéeyu taqale la woon quoi bi mu nekkee un travail à part entière ici Sénégal yàggul trop parce que am na ñu ci nekk ba léegi da ngay xam ne ñooñu c'est les premières personnes lui il en fait partie il fait partie des précurseurs sampoon atelier Médina rue cinq angle 30 ma nekk fa ak moom ba ba benn instant ñu déménager nekk Fass ma continuer nekk foofu ba ni ma beree tey ma samp sama atelier fii si Cap Foire mais jàng naa ko à euh, presque dix ans presque dix ans waaw yoo xam ne ci formation am laa nekkoon quoi. mais bi nga beree sa daal at léegi ça fait combien cinq à six ans bi ma beree sama daara. ça va faire bientôt cinq à six ans et au passage ma ko ci sant bu baax a baax a baax parce que bénéficier nañ ci moom ci benn formation bu extraordinaire wax dëgg yàlla waaw bi ñu génnee xam nañ ne ki ñu formé jox nañu formation bu bu spéciale par rapport ak la ñuy gis ci terrain bi quoi vraiment. alors euh, Sénégal est-ce que bari na ñi nga xam ne dañuy daal di def métier bi. bon bari na ñu koy def mais bariwul ay spécialiste chaque fois da ngay gis koo xam ne par exemple surtout côté électricien yi da ngay gis koo xam ne électricien lay nekk di defaale en même temps climatisation du ci ëpp parce que climatisation aussi euh, dafa nekk liggéey boo xam ne liggéey saison la liggéey saison bu demee période seddaay densité bi day wàññeeku du coup am na ñoo xam ne loolu mooy tax dañ koy alterner ak leneen yaa c'est rare ceux son sont ceux nga xam ne dañ ciy consacré wu exclusivement mooy lu ñu def ñun waaw mais ñu ci ëpp dañuy xaw a alterner pour période seddaay bi ñu mën a am yeneen occupation. alors nga xam ne dañuy alterner période seddaay bi euh, ñu daal di ko def leneen tey par exemple ki nga xam ne dafa yor otoom période seddaay bi du jékki saay rek taal li nga xam ne mooy clim bi est-ce que des fois loolu du yàq li nga xam ne mooy matériel bi comme par exemple like euh, li nga xam ne mooy essuie-glace tey bu nekkee doo ko utiliser. Euh, ba benn moment bi day jékki saay mu taxaw. mu grippé est-ce que loolu du arrivé li nga xam ne mooy climat. bien sûr bien sûr parce que climatisation boo koy euh, expliquer ñun ñi souvent am na ñoo xam ne boo leen ko waxee ba tey jii nii say client boo leen koy expliquer duñ ko nangu mais déjà loolu am na impact ci gaz bi. waaw parce que gaz boo utilisé wul bàyyi ko mu fixe benn place bu gaz bi tourné wul circuit bi tu as tendance à avoir des perte ki ëpp lu muy taal climam. kooku moo gën a mën a conserver gaz ki jàpp na day sakkanal di ko gëj a taal lu ma la gën a utiliser clim sama gaz day gën a sakkan vu que day tourner ci benn circuit fermé ki nga xam ne da koy gëj a utiliser kooku gazam pour mu wàññeeku lu yomb la mën nga voyager gaare sa oto par exemple trois mois soo ñëwee day impacte gaz bi théoriquement boo koy wax clients yi ñu bëri foofu seen xel du ko nangu ko mais c'est une réalité quand ba pare même problème usure bi nga wax comme grippage bi ngay wax ci balai essuie système climatisation bu gëjee dox mën na am rouille à l'embrayage de la clim su amee rouille day impacte adhésion bi nga xam ne disque bi mi ngi koy am ci poli bi loolu da ciy impacte gëj a taal clim baaxul usage bi bu fekkoon ne amoo ci besoin chaque semaine minimum ne serait-ce que pour dix minutes utiliser ko deux fois par semaine ne serait-ce que pour dix minutes day sàmm clim ak filtre à pollen yi aussi boo ko gëjee utiliser day xaw a am ay crasse yu ci yu siy tegoog yooyu noonu quoi gëju usage moom baaxu si. parce que ñu bari duñ ko bëgg gaaw a parce que dafay def consommation bu bari pour sa carburant clim boo koy utiliser dafay consommer donc euh, tey euh, le fait que nga koy taal deux fois par semaine euh, deux fois par jour wala deux fois par semaine donc est-ce que loolu dina dina impacter dara si sa carburant. bon nee nañ clim bi à hauteur de 40 pour cent dina augmenter sa consommation wu carburant kii utiliser par exemple. su ma consommé 1000 francs ak sama ak sama oto sans clim su ma taalee clim dinaa consommé cent francs par exemple ci misaal. waaw mais bu fekkee ne da ko taal deux fois par semaine ne serait-ce que pour 10 minutes lam cay yokk sa serait vraiment pas significatif quoi. waaw te dina mën a sàmm sa clim aussi. d'accord tout à l'heure dégg naa aussi nga ne euh, ñiy def frigoriste ñoom ñooy nekk ci métier bi nga xam ne mooy nekk ci clim auto électricien bi. voilà d'accord léegi frigoriste bi yow mën nga defar li nga xam ne tout ce qui est frigo wu kër frigo wu kër dama koy comprendre mais du ma ko liggéey parce que vu principe bi ñoo bokk principe de fonctionnement yi même composant compresseur bi envoyé gaz bi ci condensateur bi mu refroidir ko envoyé ko ci détendeur bi mu dem ci évaporateur bi retourné waat ci compresseur bi principe de fonctionnement bi. instant bi damaa réer man. réer naa Cheikh réer na yaa ngi comprendre xam naa ne téléspectateur yu bari réer nañ léegi nga ne lan yow man instant damaa jaxasoo de parce que li nga wax dama ci comprendre merci voilà voilà pour téléspectateur yi gën a comprendre. léegi ah. Uh-huh. Euh, dafa am moteur boo xam ne moom mooy moteuru clim moteur boobu moom mooy pousse gaz bi mu tourner ci biir circuit bi léegi ci biir circuit boobu dafa am ay composant benn benn yoo xam ne bu ne am na lu muy liggéey. léegi composant yi ngay fekk ci oto di nga ko fekk ci frigo di nga ko fekk ci climatisation bâtiment même composant yi la liggéey bi ñuy liggéey fii la ñuy liggéey fee forme yi ñooy uute ak système yi quoi mais même composant yi lay doon léegi nag man comme xam naa bu automobile danaa juste comprendre bu bâtiment muy frigo ak kilimu bâtiment dinaa leen comprendre mais boo ma ci bëggoon intervenir loo mënu ma ci intervenir non no non parce que waaw parce que déjà déjà système d'alimentation yi bokkul xam nga li nga branché ci courant batiment ak la nga xam ne fil topp ko maanaam oto moo yor alimentation bokkul ki branché ci courant Senelec bi ak ki branché ci courant oto du benn. parce que vous avez compris à peu près donc moom dina comprendre li nga xam ne mooy kili mu kër mu frigo euh, mais mënu ci lu bari mais plutôt. kilimu oto loolu mooy domaine am donc euh, métier bi yaatu na mais ba tey du benn donc ku nekk sa métier euh, donc est-ce que euh, métier bi ngay def muy wàllum kilimu oto bi est-ce que c'est facile. Hmm, bon daf ci am tantôt ay intervention yu pas compliqué mais y naa a yoo xam ne ça peut s'avérer compliqué des fois mun nga gis oto boo xam ne ouvrier buy def clim mën na koo tim diagnostiqué ko te du la du la wax panne bi clim bu bañ a fonctionné mu sonn ci loolu te du la wax panne bi yombul comme ni mu paraître composant yi bariwul mais panne mun na laa sonal mam tamit intervention mun nga intervenir pour un truc dafa am sensibilité moom mun nga intervenir pour un truc par exemple benn pièce panne ma changé ko pièce bi yàquwaat kon bu boobaa il faut ma dem ci cause u panne bi pas juste réparer panne bi mais ma réparer cause bi door a changer pièce bi panne tu comprends bien c'est pas du tout facile. c'est pas du tout facile c'est pas du tout. parce que c'est compliqué ba euh, li ngay expliquer sax xam naa na compliqué na jaxasee euh, jaxasoo si bopp téléspectateurs yi kon ça veut dire que euh, climatisation wu automobile c'est ça fait partie des métiers les plus compliqués et les plus difficiles. waaw et très risqué aussi ah. parce que aussi. quels sont les risques. ni mu nekkee chaîne ni mu nekkee chaîne moo tax maanaam lu impacté kii day impacté kële impacté keneen ki. risque bi mooy par exemple mun naa la jëndloo benn pièce monter ko ma monter ko mu fonctionner mais su ma lijjantiwul la yàqoon pièce bi non da koy yàqaat li ñuy jaxase mooy da ngay ñëwaat ma ni la la ma la defar loon moo yàquwaat après da ngay dem sax ba client bi mën na dem bay dute naan est-ce que réellement li ma wax laa pan moom laa pan effectivement moom nga pan mais la ka yàq la lijjantiwul kon bu li ka yàq dana yàqaat bu bees bi loolu mooy risque bi mën nga jënd pièce lu cher monter ko et puis mu yàqu quoi ci ci ci ay fraction de seconde cinq minutes mën na suffire pour nga endommager pièce bu baax risque boobu d'habitude euh, dafay daal di am panne bu amee rek tout le temps dañuy daan euh, sama gazu clim bee jeex ci oto bi est-ce que euh, réellement panne bi souvent foofu lay jógee wala yan panne ñooy faral di am ci clim bi quoi bon Sénégal quand même compresseur compresseur de climatisation paanam xaw na fi xaw na fi bari problème mu fuite aussi xaw na bari ñaari paan yooyu mooy paan yi nga xam ne moo gën a fréquent compresseur bu endommagé ak fuite wu gaz fuite wu gaz bi li koy waral mooy xam nga ñun oto yi duñ koy jënd par exemple zéro kilomètre Sénégal oto dañ koy jënd fekk mu daw lu yàgg lu ci ëpp quoi majorité bi duñ jënd oto zéro kilomètre dina fekk pièces yi xaw nañ vieillir bu dee évaporateur bi au bou de cinq ñu dañuy importer oto 5 ans ñu ne oto bu bees dañ jënd mais au bout de 5 ans suffit pour évaporateur bi yàqu. ça suffit pour tuyaux yi commencer di céder pression ça suffit bu fekkee yenn dëkk yoo xam ne dañuy utiliser par exemple euh, xorom di ko di ko di ko di ko di ko wàccewee seen neige xorom boobu day impacter radiateur climat mën na ko yàq yooyu day jur li ma la limal yëpp. ci cadre fuite la bokk. ah ce loolu rek lay yàq oto pour ñi koy wàccewee seen neige bi. parce que damay dégg aussi voilà ñu bari naan xorom bi may wàccewee sama neige bi moo tax lii yàqu. waaw day day day day yàq ba ci carrosserie day lekk carrosserie noonu lay lekkee aussi matière climatisation yi te bu leen lekkee ba nga xam ne dañu commencé faible day commencé sédé gaz bi bu commencé sédé gaz bi nga constaté oto bi am na fuite waaw fuite bari na fi compresseur li koy jur souvent mooy que ni bu fekkee ne da nga utiliser qualité gaz bu baaxul day yàq compresseur yu waaw baax na ñuy utiliser qualité gaz boo xam ne. dafay dafay dafay dafay sàmm bagage oto bi ko quoi parce que gaz bu bon boo ko defee ci kilimu jaabur day yàq compresseur. man loolu buggoon naa si ñëw un peu parce que est-ce que des fois ñi nga xam ne dañuy defar climu oto du ñu turian ah, tuuti parce que des fois nga ñëw euh, euh, gaz bu bon boobu noonu ngay wax xam nga dafay yàq yow yaa ko wax en tant que professionnel euh, donc ki nga xam ne mooy defar clim bi jëndal la gaz bu bon dem nga toog quelques jour quelques mois ñëwaat na yàqu na est-ce que loolu tamit yéen doo leen faral di ko def. waaw de notre côté nous on on on on fait le maximum pour mën a am gaz bi gën ci marché bi de notre côté tantôt gars yi tamit suñu bokk ouvrier am na ci ñoo xam dañuy xool gaz ba gën a yomb ndax mu gën a rentable ci ñoom parce que gaz mën na am différence de prix fois deux nga jëndee fukki dërëm ma jëndee cent franc soo chargé mu sedd su ma mu sedd mais est-ce que yow sa gaz du yàqal client bi loolu da ciy am solo. mais bon loolu xam nga ci ci ci ci ci nit bi rek lay dépendre boo buggee offrir benn service de qualité de qualité il faut que tamit ngay nga jéem a mettre le prix aussi ah waaw te voilà quoi nous on essaie de notre côté de faire le maximum di jënd qualité gaz bi nga xam ne moo gën ci disponible ci marché bi waaw. est qualité benn gaz mën na dem ci oto yëpp clim clim la rek wala marque oto bu nekk ak ak clim ba fay dem. waaw à l'époque amoon na gaz 12 mais loolu yàgg na. daanaka di ma lay wax lii ay année 2007 presque amatul amoon na amatul parce que c'était un gaz plutôt polluant du coup gars yi dañ ko dañ ko effacé tubaab bi dañ ko reye quoi daanaka léegi oto yëpp 134 la ñuy jël am na gaz bu génn ces dernières années depuis 3 à 4 ans mu ngi nekk 1234 kuwam nag dafa xaw a cher mais gars yi ngi koy substituer ak 134 bi cent trop de dégâts seen différence ci sama jàngat mooy que ne problème mu pollution juste mais compatibilité gis naa ko ci quoi mais pour l'instant dafa xaw a boo ko indi woon tey importé ko bëgg ko charger les clients bi à la place de 10 000 francs nga bëgg ko charger les peut-être 80 000 francs gis koo ko jaay différence bi dafa bëri ci prix dafa bëri dafa bëri moo tax pour l'instant commercialisé guñ ko fii ci réew mi gisaguma ko mais xam naa ne mi ngi disponible am na oto yoo xam ne tubaab bi moom la conseillé ñu def ko ci waaw mais pour l'instant disponible gul quand même genre auto exemple bon les les voitures de 2020 par exemple 2020 2018 yenn haut de gamme yi yenn waaw waaw waaw waaw tantôt nga gis benn oto bu ñëw fii benn genre oto boo xam ne âge am âge bariwul yooyu dañ koy dañ koy dañ koy demander kër yaay choisir un chevaux ngay def yaay xool mais oto dañ ko programmer amoo choix dafa am kilim bu oto bi wàccaale bu compatible ak beneen oto par exemple su ma ne laa sa Toyota bi ak sama Ford bi seeni compresseur par exemple moteuru clim bi mënul montante mais bu dee bâtiment tu as le ngay dem ci magasin nga taxaw nga ni bii laa bëgg monte monter wala bee laa bëgg a monter mais oto dafa am programme bu ci tubaab bi teg programme boobu ci ngay tënku performance nag mën na uute parce que oto yi dañoo mënante ni ñu dàqee dawante noonu lañu dàqee seddante si clim tolloowuñ doole waaw léegi da ngay remarqué ne am na ci oto yoo xam ne seen climatisation day doon par exemple climatisation à double évaporateur moom boo day boobu day gën a sedd surtout oto de luxe yi dañ koy am am na ay berline de luxe yoo xam ne dañuy am deux évaporateurs berline bu dul haut de gamme mën na am benn évaporateur euh, bu fekkee ne par exemple 4x4 yi aussi am na 4 x yoo xam day am double évaporateur am na yoo xam benn évaporateur loolu day joué la comme ni ma waxee woon comme ni clim nekkoon la ci waaw ba pare tamit ci oto yi dañoo mënante comme ni ma la ko waxee dañoo mënante ci performance. xam naa loolu sûrement parce que man loolu jaaxaloon na ma torop da ngay dugg ci benn oto mu sedd torop torop ba yow finalement da ngay préférer fay kilim bi wala nga taal chauffage bi euh, nga dugg ci beneen oto euh, seddaay bi du demee noonu donc euh, oto yee mënante alors lu ma jaaxal aussi clim bi fan lay nekk ci oto bi exactement parce que man oto daal boo leen ko ubbee rek réer naa. waaw clim ngi partout su ma ne laa mi ngi ne côté moteur am na pièce clim bu fa ne ci kanamu radiateur am na pièce clim bu fa ne si biir tableau de boor bi am na pièce clim bu fa nekk ba pare ak tuyautage bi traversé na capot wu oto bi bu fekkee double évaporateur day traversé carrosserie bi parce que dina dem ba ci ron oto bi dem rejoindre ci ginnaaw kon clim mu ngi fépp. dañ ko étaler fépp moteur bi mooy yóbbu compresseur radiateur bi mooy supporter radiateur clim évaporateur bi tableau de bord bi moo ko supporter. commande yi aussi ñu ngi si tableau de bord moo tax mi ngi mi ngi partout bi intervention bi tey mën nekk ci ginnaaw bi wala mu nekk ci kanamu oto bi wala mu nekk ci biir oto bi intervention mën na nekk fépp parce que clim a ngi fépp waaw pièces dañoo tas ci biir oto bi quoi. loolu mooy waral nga taal sa clim sedd waaw li tax ngay taal sa clim oto bi yëpp sedd mooy euh, ci tableau de bord bi mën naa ne finalité wu clim foofu la nekk finalité bi foofu la nekk boo taalee euh, bu ventilé. fi muy génnee produit bi loolu mi ngi ci tableau de bord bi moo tax parce que habitacle bi moo leen intéressé refroidissement bi habitacle bi moo leen intéressé nag moo tax fraîcheur bi ci habitacle bi lay ñëw yaa alors est-ce que même chose la même endroit la même matériel la wala nu mu demee noonu parce que ni muy tàngalee noonu lay seddalee est-ce que loolu tam boobu waaw euh, clim ak chauffage fenn lañ jotee mooy ñoom ñaar ñëpp dañoo daje ci biir tableau de bord bokk benn ngelaw bi leen di envoyé ñu ñëw lii lañ séq bu weesoo loolu amu amuñu séquñu leneen amuñu benn rapport parce que booy xool chauffage tubaab ni mu ko defaree mooy que ne da koy jël ci ndox bu tàng bi ci moteur bi moom la créer canal mu dugg ci tableau bi boo ubbee parce que booy xool chauffage ak clim dañ lay jox choix benn van boo xam ne bleu mooy clim rouge mooy chauffage léegi nag loolu day créer benn genre séparation ci biir bu ma poussé nii mu jox ma parti bi nga xam ne moom la tubaab bi denc chauffage bi mu ventilé foofu mu ñëw su ma poussé bleu mu isolé chauffage bi may ma parti climatisation bi su ma uppee mu ñëw ci biir tableau bi kese kese kese lañ séqee benn lien mais bu weesoo loolu mécanisme bi ñoom ñaar séqunu dara nit ñëw na ne ma kilim la panne ma diagnostic a xool gis na climam doxul ma def samay diagnostic genre teste yi ma war a testé yëpp après renvoyé ko ci mécanicien ne ko mécanicien bi soo demee ci moom na def lii ak lii ak lii sa kilim dina dox mun naa gis problème bi mais du doon sax man maa koy lijjanti parce que day am problème mu mécanique bu nekk ci oto bi boo xam ne mooy tere clim bi dox wala problème mu électricité boo xam ne day tere clim bi dox boo xam ne électricien ba bu ko lijjantee tubaab bi dina désactiver sécurité boobu parce que oto daanaka dafa am loolu li ma la wax compliqué gi day am ay euh, ay sécurisation yoo xam tubaab da koy def par exemple lii bu fonctionné wul day day day day couper climatisation léegi nag waa ji moom li muy du comprendre loolu li muy xam rek mooy man sama clim doxul fekk am na beneen panne boo xam ne mi ngi ci oto bi moom xamu ko moom clim bi rek la xam ne doxul mais la tax bi doxul panne la boo xam ne ñëwee fi man maay dem ba xool gis ne panne sàngam bu lijjanti ko dina kilimam dana delloo si ma ne ko demal ci mécanicien wala man demal ci électricien. sénégalais yu bëri amuñu habitude di taal clim donc est-ce que euh, clientèle bi moo ngi ñëw comme il faut. bon climatisation auto au fil des années dafa gañe popularité dafa gañe popularité parce que euh, da ngay da ngay xool euh, avant nit bu daan jënd oto clim mooy dernière affaire bu muy lijjanti. léegi da ngay gis client bu la indil oto ne xoolal ma clim bi ndax normal na parce que dama ko bëgg a jënd léegi clim dafa bokk sax ci diagnostic avant achat option bu intéressé ñin ñi la parce que déjà aspect wu aspect wu sécurité clim da ci am solo nekk sa oto ak say vitre dalay lay sécuriser day tax par exemple nit du yor loxoom si sa biir oto par exemple ñun dañu mën nañu utiliser suñu téléphone pare teg doo dégg mukk kii aj vitram ne la booy bi damaa romb ci embouteillage bi mu dugal sama loxo jël sama téléphone parce que dafa am clim kenn du jot ci ay bagaasam day aj vitram am na aussi par exemple taw bi loo bañ bañ clim boo ajee say vitre day doon nécessité il faut nga il faut nga il faut nga utiliser ko waaw waaw clim ci biir taw waaw waaw temps la temps la temps temps ba pare gisoo ñi amul clim uh-huh. day gën a dañuy gën a exposé dañuy nekk en danger parce que booy nooy air bu tàng boobu ngay dégager day dem créer benn buée ci sa par brise bi bu boobaa day assombrir sa vue dootoo gis moo tax nga gis ñi amul clim dañuy daw ba si ak nga gis leen ñu fomp fomp fomp fomp parce que euh, air bu tàng bi ñuy produire ñun doomu aadama yi mooy dem ba day bari ci oto bi léegi nag ci biti mi ngi am air bu sedd biir oto bi am air bu tàng ñaari affaire yooyu bu ñu dajee ci vitre bi day créer buée de l'autre côté du coup day am problème mu sécurité déjà kon importance su clim day daal di nekk foofu waa léegi aussi ci côté esthétique di nga génn sa kër sangu ba set maquillé yow bu dee jigéen ñi dóor sa parfum bu kuul déjà boo amee rendez-vous par exemple nga nekk si embouteillage yi parce que embouteillage yi quand foo diir dire que ni de plus en plus day day gën di bari quoi voilà léegi nag ki amul clim moom buy ñëw day mel ne ku doon xeex danger bi gën a day mel na ku doon xeex day ñax te xep froissé bi gën a danger mooy dangereux mooy amoo kilim ba pare yéegal verre waa loolu tam xaru la waaw non boo amul clim yéegal ver moom saa di nga mel na ku ñu doon sang moom Omar <laughs> damay faral di dégg ñu ne ki defar clim xam na yoonu àjjana est-ce que duñu ko wax benn yoon waaw waaw waaw yi neex na nag gars yi nee nañ de ku ko torturé mu wax la fi àjjana nekk <laughs> xam na ko da ko wax rek mu taw ba def sa noonu ah mu taal sa clim mu dugg sa couette nelaw ba fàtte say bor. dafa dafa dafa dafa dafay dafay dafay dafay may nit ki confort repos même gisoo ma embouteillage bi nii. ñi ci gën a tàng xol mooy ñi amul clim xamoo loolu waaw. seen yaram day tàng. <laughs> waaw waaw tàngaay bu leen jàppee saay fi ñu lay làq du sori. ñëw leen ci gas. seen coono àddina leen ci bët rek coow jib loolu <laughs> ñëw leen si gas seen xol dootul tàngati ndax nga taal sa clim de sa musique bu du si suuf ah wala nga def say instrument de plus ah yàlla boo nelaw cooto bi. non dafa am solo dafa am solo ci climatisation dafa am solo ci ci ci ci nit quoi dafa am solo ci oto comme li ma la énuméré lépp sécurité bi confort bi te xanaa xamoo même nit ki voyager déjà wàccee ay vitram di daw allure te aju ko parce que amul clim moo tax aju ko. mais ki wàccee ay vitre am xanaa xamoo wàccee boobu mu wàccee vitre bi am na impact ci stabilité oto bi parce que vitesse bi vent bi di dugal ci biir oto bi day yëngal carrosserie oto ba ci aspect sécurité c'est très important clim dafa am solo du affaire u noos rek mais dafa am solo ci oto même pare day sàmm sax euh, intérieur u oto waaw doo jënd sa oto lu chair moom am cuir bi du xolleeku ba pare tilim tilim bi parce que ñun sunu environnement bi dafa xaw a bari pollution boo ajul say vitre biir oto bi dina oos xam nga dina bëri poussière ruq-ruqaat yëpp day salte quoi mais kii aj veram tout le temps otoom day set toujours loolu tamit da ciy am solo. loolu c'est important ay une voiture euh, propre loolu dafay daal di dundal xool mais aussi kilim dafa daal di bokk euh, si si dundu nit muy kër. muy oto loolu yëpp mais euh, moyens yi nekkuñu fi mais yàlla baax na donc ak li nga expliqué nii yëpp yëpp yëpp defar clim war naa cher de si kuta waaw dafa mel ne nga ni defar courant war na cher ci électricien bi wala defar mécanique auto war na cher cherté panne mi ngi dépendre ci panne bi y a des pannes pas chères y a des pannes quand même chères am na piyes yooyu pan ak liggéey bi li muy laaj ci effort facture main d'œuvre bi day élevé par rapport ak beneen panne facture pièce bi day élevé par rapport ak beneen panne lépp mu ngi dépendre ci pièce bi nga pan waaw mais quand instant bi nii nii nii may wax ak yow vu ak euh, avènement wu voiture américaine yi daanaka seen i pièces moom amu ci daanaka bu bu bu yomb ko waaw seeni i moom day cher parce que pièces américain quand même dafa cher. su Toyota si Toyota ay pièces am cher na. Toyota Jeep cher na la <laughs> Jeep américain la. cher. français yi daal ñoo fi xaw a yomb bagage. non ay ay ay ay Peugeot ñoo ñoo xaw a tane gars yi tuuti Peugeot Citroën ñooñu ça va quoi. par rapport est-ce que gënt dëgër. bon dëgër dëgër dëgër am na am na français yoo xam ne fiable nañ allemand ni mu malgré ni mu amee euh, réputation wu robustesse am na allemand yoo xam ne ñeme wuñ coono lépp mu ngi dépendre parce que oto yi dootul dootul dootul dootul dootul rek. dootul tour rek dootul Ford Mercedes BM dootul tur kese tour kese doyatul maanaam da ngay def même nit kuy jënd oto tey dafa war a def dafa war a def prospection ci fiabilité model boobu parce que Toyota mun na la defaral Toyota ñoom ils ont l'habitude quand même de faire des trucs fiables mais na la defaral Toyota bu dëgër et à côté benn Toyota boo xam ne par exemple waa fiabilité am day xaw a des Peugeot mun na la defaral Peugeot bu dëgër mais à côté mu defal la Peugeot boo xam ne ñemewul coono moo tax lépp mi ngi varier selon modèle bi voilà fiabilité bi mi ngi dépendre ci modèle bi waaw. en tout cas c'est très man euh, li ma bëgg instant bi mooy découvrir rek li nga xam ne mooy naka lañ koy defaree montage bi mais en comprendre tout ce qui concerne rek li nga xam ne mooy clim ci oto. Cheikh dama bëgg ñu ànd ak gaz parce que moom boo ko déggee li muy waxee rek nga xam ne c'est un homme qui maîtrise très très bien son travail euh, donc euh, maîtriser na li nga xam ne moom lay liggéey et puis aussi xam naa ko ñëw fii aussi di nga am satisfaction parce que bañ fiy ñëw fekk nañ fi ñu bari. bu baaxee rek daal di dem euh, ci liggéey bi daal di xool naka lañuy defaree rek li nga xam ne mooy crime. voilà comme vous avez vu def daal dinañ def euh, démonstration avec gaz nee naa leen moom ku maîtriser li muy def la nit boo nekkee moom mu maîtriser li muy def rek dafay daal di neex donc gaz euh, tey dañuy daal di waxtaanee un peu li ñu fi jot def parce que gis naa gaz bi. nga daal di ko dugal ci récolte bi ñëw nañu fii aussi dindi fi salte bu bari donc il faut nga expliquer ñu yenn détails yi lan lan la ñu def. bon oto bi li ñu ci def mooy dafa amoon besoin wu gaz amuloon gaz. ñu def ci gaz filtre à pollen bi bi ñu taalee gis nañ ne puissance vent bi nécessité na ñu décrasser filtre à pollen bi du coup dañ ko dindi soufflé ko mu set ñu monté waat ko moo tax mu am dooley vent bii nii mu am voilà waa loolu lañ ci def comme intervention c'était pas méchant. ah bi ñu ñëwee dañu daal di gis ne filtre bi y avait trop de saleté dedans bëggoon naa xam exactement saleté bi nan na def ba jaar ba dugg parce que euh, c'est compliqué quoi fi mu nekk dafa sori ak saleté bi nu mu def ba dugg foofu. waaw filtre à pollen bi. Euh, dafa am commande bu nekk ci oto bi je sais pas peut-être plus tard dina ko mën a jël commande bii ngay gis bi am dessin wu voiture bi bi am flèche bi boobu boo ko bësee day fermer benn fenêtre boo xam ne day tax doo jël airu mbedd mi sooy utiliser souvent airu mbedd mi bu souffleur bi di aspirer vent bi day aspirer walla poussière bu dee ay xob dafa taxaw foofu day aspirer xob yi dañuy ñëw léegi filtre bi njëriñam mooy poussière boobu ak xob yooyu bu ñu ñëwee mu bloqué leen boo xoolee turam moom mooy filtre à pollen à pollen pollen mi ngi nekk ci fleur pollen ci fleur lay nekk tubaab bi tuddee ko filtre à pollen muy bloqué pollen bi mais fii moom bu fi ñëwee day nekk filtre à poussière ak lépp parce que ñun moom poussière rek yëpp a ngi fi moom. lépp Sénégal si boppam moo ba di loolay doon njëriñam quoi da koy bloqué léegi bu ñu gisee filtre bi mu am ay saleté souvent day impacte ngelaw li ba ci refroidissement parce que sa clim day faible dañuy obligé dindi ko. nettoyé ko monté waat ko su fekkee ne filtre bi mi ngi ci état ci choix wu client bi lay dépendre tantôt am na client yu bari yoo xam ne moom soo dindee seen filtre systématiquement dañ la wax nga changé leen ko nga ko filtre bu bees tubaab bi mi ngi ne durée de vie wu filtre 6 mois la ko def. mois chaque 6 mois da nga ko war a changé. léegi filtre boobu ñaata lay filtre bi moyennement filtre yi ñu ngi jar 10 000 à notre niveau filtre yi ñu ngi koy jaayee 10 000 dix mille francs ñu rocc ko main d'œuvre filtre souvent ñun dañ koy maye ko waaw amul main d'œuvre dañ koy maye boo jëndee produit bi rek ñu installé la ko mu jaax donc nga daal di gis ne lii bi ngeen nettoyé avant génnewul woon nii. waaw mais bi ngeen nettoyé vent bi au paradis rek waaw waaw waaw da koy yokk doole parce que souffleur euh, bi mi ngi aspiré ci li ko filtre bi jox bu filtre bi fattee moom bu aspiré du am suffisamment de vent mhm. vent bi du doy. léegi bu fekkee filtre bi dafa libre bu aspiré rek day mën a jot ci ngelaw li correctement kilim moo tax moo tax tantôt ngay gis nit muy taal clim kilim bi coow li bari coowal ngelaw li bari waate du agsi ci moom voilà loolu filtre bu encrassé moo koy def voilà voilà. mi nga xam ne dañu daal di nekk um, ci oto ak ci kër normalement ñaata temps lañ ko war di rak chaque ñaata temps lañ ko war di nettoyer. bon bu dee filtre kër yi. yooyu day nekk souvent sous forme de grillage dañ koy génnee après ñoom dañ koy raxas monter ko mais bu fekkee fii matière bu xaw a mel ne papier lay doon waaw matière boobu bu fekkee benn instant day dem ba day mel na lu encrassé day dem ba day comme filtre bi nekk ci moteur day dem ba durée de vie am day jeex il faut nga remplacer ko quoi. mais six mois la tubaab bi wax comme délai bi nga xam ne war nga ci changer sa filtre à pollen quoi waa tout ce qui se, se conçoit bien s'annonce clairement. clairement. Et, les et mots, pour, le dire arrivent aisément. <laughs> monsieur Seydi je te fais un énorme coucou moo ma yoroon CM2 xam nga kon boobu ba léegi. mais mais si ah. effectivement loolu. dafay nekk par exemple euh, li tax nga am peut-être remarque woobu mooy c'est surtout la formation. waaw ki ma formé je je je l'en suis très reconnaissant. yem du ma du ma du ma du ma du ma taay ci di ko jaajëfal parce que ba ma génnee laa xam ne dëgg dëgg dëgg. am na lu mu def ci man ci xam-xam muy Abdoul Aziz Dieng bi nekk euh, Fass actuellement waaw un grand homme macha allah il a formé pas mal de gens pas mal de gens très très performants parce que fournir nañu formation de haut niveau ça moom il faut il faut lui lui concéder ça waaw on lui fait coucou donc lii ni yombul euh, et puis wax sa baaxu morom du wàññi dara sa baax émission bi ah, dafay daal di tirer rek à sa fin ah, donc voilà Cheikh depuis tout à l'heure moom may def si mais fallait ñu de ñu jeexal daaneel Cheikh may ñu mu tàggatoo <laughs> faaw nga tàggatoo gas waaw waaw waaw vous remercier d'abord pour euh, dérangement bi ngeen def ñëw ba fii mhm. mu nekk émission bu bu bu am am solo bu ñu rafetlu parce que corps de métier yi nekk Sénégal aussi dafay baax gars yi di di di di xam les rouages et tout dina sax pour man faciliter euh, jokkoo bi nga xam ne dina am diggante clientèle bi ak fournisseur de service bi da ciy am solo gars yi bu ñu seetaanee émission bi peut-être di vont apprendre davantage sur li ñuy def ñu kontaan si trop di ko rafetlu di ko encourager aussi mu gën a yaatu ci yeneen domaines yi incha allah. est que accueil bi demee na fa noonu est que sa clients yi bu ñu ñëwee di nga leen di accueillir comme il faut. waaw surtout. aspect bu am importance nit ki mën na laa nangul parce que c'est depuis depuis l'accueil wala mu bañal la parce que ci accueil bi la waaw da ngay fexe yow ki ngay liggéeyal ngeen am benn genre déggoo buy am waaw boo ko dalalee mu nekk à l'aise buy wax ak yow ngeen doon ay partenaire ci biir liggéey bi ngeen doon ay partenaire dafa am solo loolu ñu ngi ciy góorgóorlu di ci bàyyi xel aussi di ci liggéey parce que boo gisee ni boo bàyyee xel ni dañu nekk présentement en chantier li ñuy defar ni yëpp juste pour euh, pour bëggal clientèle bi la dañuy bëgg defar ay euh, ay ay salle euh, benn benn salle d'attente xam nga boo xam ne bu client bi ñëwee il sera vraiment à l'aise waaw yooyu aspect bu am solo la c'est pas négligé ñu ngi ciy bàyyi xel tamit di ci góorgóorlu waaw parce que aspect bu am am solo la. Mhm. c'est important aspect bu am am solo la surtout li nga xam ne mooy lakk yi dafa daal di am importance nit ki boo ko accueillir rek day am envie jëflante ak yow ah, donc gars c'est un plaisir dalal la ci émission góorgóorlu ah, donc je pense que euh, li nga jot a expliquer amaana ñu bari ñuy seetaan xamuñu ko woon ci émission bi et que dinañ ko comprendre donc euh, di jëfal sama caméraman. donc moom nag dafa xaw feebar tey dafa am jamut si bët mais góorgóorlu la bëgg ci xolam ba tax na dafa ñëw sacrifié wu Cheikh Sadibou ah, kooku sama doom la donc euh, mi ngi noonu mais aussi euh, ki nga xam ne mooy le monteur de tous les temps euh, donc voilà di Gora Gora je te fais un gros coucou également lu ci rafet rek ah, bu ko Cheikh monté bu ko Cheikh wonee ba mu nice yow yaa ko monté ah, donc di la jaajëfal aussi di jaajëfal également téléspectateurs yi nga xam ne chaque mercredi dañuy daal di bàyyi seen yitte 14h30 fu mu jotee rek ñu daal di jàpp 7TV di seetaan li nga xam ne mooy góorgóorlu ah, di leen faire un gros gros coucou di euh, di di di def un gros coucou waa Camp surtout ñoom ñoom tout le temps dañuy bu ñu amee occasion woote rek dañ may daal di woo di euh, rafetlu li nga xam ne mooy émission bi que ça soit matinale bi may def que ça soit góorgóorlu que ça soit yeneen yi yéen waa Camp Pénal nee naa leen fii laa leen def et di leen jaajëfal bu baax a baax yal na leen yàlla gaaw génne fi ngeen nekk waaw am na ñenn ñu génn sax maa ngi leen di euh, ñaanal yàlla boo leen fa dellooti ah, donc sur ce prenez soin de vous et à la prochaine incha